dafa war a dem wuy ji yoon ci procès boo xamante ni ñetti at yi yëpp ñu ngi ci dox guddi ak bëccëg di ci wax procès bi nag lu ci bare bari xam nga procès bu yàgg day mujj leer ci boppi nit ñi ci ñun ñëpp ba mujj nit ñooy doon seen siisi bopp ba àtteel ko seen bopp keneen ku ca bëgg a dugal leneen lu bokkut ca dussi ba day mujj nag waa dussi ba waa poobul ba ñoom ñooy mujj di doon seen avocat bopp doon seen doon avocat mbir mi te fi mu toll nag mbir mi nag dafa jot ñëpp doon avocat mbir mi mooy awokaa mbir mi mooy lan mooy ñu seet fan la dëgg gi nekk ñu génne ko loolu la nit ñi di wër am na ñu ko gis nanguwunoo wax ne dëgg gaa ngi am na ñu gisul dëgg gi ba léegi di ko làmbatu am na ñoo xam danoo gis dëgg gi ba noppi bëgg yàq dëgg gi loolu nag problème bu rëy la ci am réew dossier boo xamante ni avantage ci réew mi bariwul li muy lor réew mi moo ëpp da koy lor ci lépp da koy lor fii ci biir réew mi lor ko ci ñi ko séq lor ko bitim réew xam ngeen ne kenn du seen ay pono di tàkk guddi ak bëccëg ñuy wax nangam blessé nangam moor nangam ci prison yi kenn di jël alalam naa da koy investir ci dëkk bi loolu xel sax nanguwu ko te loolu de moo ne daanan ci gañe e, ñi nga xam ne sax ñooy ay e, e, ay immigré yi nga xam ne ci Sénégal lii leen dëkk fi ñu toll nangootu noo def benn transfert pour indi ko ci seen dëkk kañ la ñuy xaar kay mooy deux mille vingt quatre ndax réew mi xañ na mën a nekkaat ci jàmm jàmm nag kenn du ko xeeb kenn du ko xeeb aw ay tamit kenn du ko xeeb kenn du ko xeeb loo am ci aw ay lu mu tuuti tuuti tuuti xamal ne musiba la toqantalu ferñeentalu seytaane la ibliis la loo am ci jàmm-jàmm bul doyal mukk jàmm bul dem ba ne man de fi mu doyal naa jàmm bu la kilim yu ëpp moto yi dar la xaalis bi bari compte banque yi bari jigéen ñi bari sante bi bari ci sa yaram ci sa fépp ci sa njaboot amoo dara looy jaaxal looy xalaat bu mu tax nga jàpp ne yaa ngi lépp jàmm déedéet léppi jàmm sunu borom a ko moom léppi jàmm ki koy woo kii woo jàmm moo moom jàmm waaye ki woowut jàmm doxul jàmm kooku du am jàmm ki amul jàmm mooy ki bëgg a teg nit ñi jàmm mooy ki yéene nit ñi lu dul jàmm kooku na xam ne mënul fexe ba am jàmm te lu mu mën a jënde loola am jàmm moo ko gën ci moom mbir mi nag Ousmane song ku nekk xam na ne fi mu toll li ko nit ñi jaral ab procès la présenté boo xamante ni procès boobu nit ñi dañ cee gis seen bopp nit ñi ñoo ko walideel seen bopp ñenn ñi guddi leen ko walide guddi toog ba ci yàgg ñu xalaat ñu ne procès bi baax na ñenn ñi dañuy dox ba ci yàgg ñu xool ñu ne procès bi baax na ñenn ñi dañuy xool ba ci yàgg muy taw ñu ne procès bi baax na ñenn ñi mu jaral leen nag procès boobu moo leen jaral tey ñuy fanaan cité kër góor ga procès boobu moo leen jaral ñu dëgg fii ndakaaru ak li mu sore ñu dem ba Casamance di défendre procès bi procès boobu nag dafa mel ni yàlla moo leen ko defaarandoo ndax yàlla moo jël li nekk ci ñoom muy ak mbëggeel ak bëgg ñu bëgg ko ko nit soo ko bëggee lu nekk dalay jaral am na ko doon wax ne surmantu xibbu wa insartat bi ko daaru maanaam ki nga bëgg ay ab sori distance du doon seen problème distance maanaam dafa sore fi mu nekk déedéet doo ko yëg sax yow doo yëg loolu doo yëgi tamit benn coono tey mbir mi metti na lool ci Sénégalais yi metti na ci famille yi nga xam ne Ousmane Sonko am na doom am na yaay am na jabar am na ñëpp situation bi ñu koy teg pression bii bi ñu koy teg bii ndax àttan na ko jàpp naa ne ci yoon mois bii mois de mars bi wala lu du mars ñu àtte ko ci ñetti yoon mu dem ci walla juróomi yoon wala lu ko ëpp mu dem ci tribunal dem guddi te saa buy dem problème am saa buy dem kër góor gi cité góor góor gi kenn du mën a dugg mujj na sax Dakar dem dikk yi kenn dematul kenn dikkatul hôpital yi kenn dematul nangam Dakar boo fa amee oñaas wala nga war faa dem wala war a faju doo mën a dem loolu nag dara jëru ko loo xamante ni saa bu jógee day baare réew mi actualité yi réew mi ba actualité yi bari jóge war a jóge bitim réew ñëw loolu nañ ko arrêté Mame Mbaye Niang fii la nekk dossier bi ñu àtte ko ba noppi ñu ne dañuy raajaat procès te Mame Mbaye Niang li mu waxoon Mame Mbaye Niang dana woon xaalis bi nan ko yokk daan yi nu mu gën a bari mais xam nañ ne yokk gën ko yokk mooy nan yokk peine bi nan yokk tëj gi te koo xamante ni loo ko mën tëj fi mu toll da nga naa eh, maanaam lum du tëdd la lum du tëdd la boobu peine loolu jëru ko loo ko àttee ba noppi àtte bi moom lu mu rëy rëy da du tëdd du ko tëdd lu tax du ko tëdd lu tax du ko tëdd loolu xel yee yëpp ko xamandoo danoo mas a fekk benn Euh, nit ku faatu nii sénégalais yi ni ñuy def ku faatu koo xam ne jubul woon bandi baaxut woon bi mu faatoo ñu koy tagg di ko indil ay jikko yu rafet yu bari benn dof romb fa ne leen wax leen li ci xel yi te bàyyi li ci làmmañ waaye lu tax Ousmane Sonko du tëdd lan la bu njëkk dañ woon daan nañ ko nu mu ñaari at yoo xamante ni du ko tëdd ñaari weer yu mu du tëdd ñu dikk dolliwaatal ko six mois ne ko du ko tëdd ah ah waaye sëñ bii kon ginnaaw xam nga ne du ko tëdd te li tax di ko tëdd xam nga ko loolu luy maye jàmm la luy maye aafiya la kon ya ca defe yépp dañ ko war a kii beneen bi ci des mbir yi ku mas a toll fii mu toll soutenir nan la sénégalais yi soutenir nan la sénégalais yi yërmandey suñ borom ji suñ borom doon séddale kenn ëppalewu ci sénégal kenn ëppalewu ci sénégal yàlla buggut kenn mbindeef laa wax li mu bëgg bëggul kenn ku ci mettital dara bëggut ko ci lor kenn yàlla dafa bëgg ku koy wuutu ci mbindeef yi mu wuutu la ci say aajo te yàlla sax kenn mënu koo wuutu jéem koo wuutu wuutu la li mu wax ne dee leen ma tudd ma leen di tudd dee leen ma fàttaliku ma leen di fàtte yàlla du fàtte waaye loolu waxinam la noonu yàlla inna naxnu loolu ay waxinu boppam la waaye mbir mii nanu xam ne yàlla am na lu mu dëxañ ci nit ñi ndax ñii di toog di mer wala ñii toog di défendre procès bi yàlla am na kum ci nangul ci sa làmmiñ koo xam ne bu nee na am loola yàlla amal ko ci coobareem bu nee du am yàlla amal ko ci yàlla ñàkk ko amal ci coobareem ñooñu nag ñoo jara moytu ñooñu nga xam ne du ñu génn ci mbedd yi du ñu jéem a defar ñoom fu ñuy défendre ci seen biir der wala ci seen biir kurus te wax dëgg yàlla sénégalais yi mbir mu mel nii am na ko fi xewoon masoon na fi xew ci président Macky Sall ba ko Ablaye Wade di néewal doole sénégalais yi ñoo ko jël defaraat ko organiser waat ko fompaat ko defar ko ba yóbbu ko pale Ousmane Sonko mii lii mu amaat sénégalais yi ñoo jógaat du ay Guinée du Mali du fenn sénégalais yi ñoo jógaat ngir bëgg koo défendre yii nag dafa mel ni ay joxañi suñ borom la suñ borom ñaare bu bëggee nit day wax malaaka naa sàngam yéen it bëgg leen ko sopp naa diw sàngam sopp leen ko euh, ba nii nii ku nu ko soppee mënoo gis dara loo xam ne danga naa Ousmane songo lan la def te it ñi fi amoon doole ñëpp yàlla daa rocci seen nguur yàlla moo waxoon ne maay joxe nguur nguur ak Senghor ku ko rocci foofu rek lay tàmbalee nguuru président Macky euh, Abdou Diouf ku ko rocci yàlla nguur ak euh, Ablaye Wade ku ko rocci yàlla ku mu ko jox président Macky Sall yàlla moom rocci woon nguur yooyu ba léegi mooy rocciwaat nguur moom moo koy joxe moo koy rocci moo tax ku ko yor liggéeyal yàlla yàlla dafa xaaj ci nguuram dara jox la ko loolee mu la jox nag daa bëgg nga yërëmal ko nit ñi yarxamu man fi lard yarxamu man fi sama yërëm leen ñi ci suuf ñi ci kaw yàlla yërëm leen yéen yërëm leen ñi ci suuf yërëm leen ñi ci suuf yàlla yërëm yërëm leen mooy yërëmal leen ko ndax yàlla moo nekk ci kaw te it képp koo xamante ni sunu borom dafa mel ni nit ñi danoo langaa mbiitu ci buumam ci buumam ku mu bëgg nga àgg danga àgg ku mu bëgg doo àgg doo àgg ku mu jeexal say mbir kenn kenn mënu ci dara moo tax mbokk yi mbir mii war woon a am ci réew mi ñaawal na imaasu Sénégal ñaawal boo xam ba Sénégal de Sénégal ba léegi imaasam mosul àgg fi ci lan ay ñaari nit yuy xëccoo seen intérêt ay fukki nit ay juróom benn nit ay nàngam yu kom gis nga réew nag li koy yore dëgg dëgg bu fa dëgg amul réew mënul baax mënul baax ndax dëgg mooy organiser lépp dëgg waaye bu dëgg amul dara mënul baax dara dara lu mu rafet rafet lu mu kii kii mënul baax te nguur yi tamit kenn judduwaalewu ko kenn judduwaalewu nguur kenn judduwaal gis nga bu la yàlla joxoon ne la joxaat naa la yeneen trois waxuma la troisième mandat rek waaye yeneen troisième mandat joxaat yeneen troisième mandat joxaat la yeneen troisième bis day ñëw nga ñàkk loola bis day ñëw nga ñàkk loola. li gën a gën a mat xalaat nag mooy nit ki nag saa bu fi jógee ba room gi di wadd na xalaat bàmmeel bi ñu koy dugal ñi ko gënoon a bëgg ñoom ñoo koy dugal ci bàmmeel. te fi mu toll da bari nag koo xamante ni diwan ko naa demal man nga ko sañ nga ko boo ko defee dara du la ci fekk déedéet sañoo ko mënoo ko boo ko defee dara fekk la ci yàlla fi mu toll mën na laa aar ci bépp kii waaye aw benn feebar su ndaw yi gën a ndaw ci feebaram muy soj mën na koo def ci yow dootoo fa doxe da nga fay doxee wéradi maanaam aw yoowu ndaw dong mën na koo dugal ci sa bakkan xam nga kenn du mbooloo ñëw jóg du kenn jóg waaye yàllaa jël aw yoowu ndaw def la ko wala aw kon yàlla kàttan gi mu yore ak nguur gi mu yore ak lu mu mën a faagaagale nit ak lu mu mën a loola nit yërmandeem nag dafa ëpp yàlla dafa wax ne sabaqat raxmati sama yërmande moo jiitu sama mer loola bëgg gum bëgg jaam yi la waaye nag teewut dina mer nan moytu meram yàlla merum yàlla nag mu ngi ci merum nit ñi nit ñi kalaame yu bari yi ni kalaa nit ñi di kalaame ci yàlla di la kalaame ci yàlla yooyu muy mujj dem ba yàlla mujj nangu kalaame yooyu kalaame yooyu ñu lay kalaame Ousmane Sonko tey yaayam tey bu gisee lii bii du péréction sax ay nit ñu ko war a teg nit la boo xam ne buñ ko doon teg dañuy wax ne ay réew wala ay nangam ñeneen ñu bokkut ak Sénégal waaye ku bokk ci réew mi di doomi réew mi ñëpp yaakaar ne réew mi bu demee élection moom moo koy jël nga xam ne tey boo doon waatloo nit ci li mu gën a fonk muy billaahi wallahi taala ñi mën a teg ne diw sàngam mooy jël réew mi moo mën a ëpp ñi ñi ñi ko du teg ñii mën a teg tey bu fekkoon ne dañuy waat rek ngir waat gu dëggu bu nuy waat bu nu waatee ne diw sàngam Ousmane mi mooy jël réew mi ñi ëpp ci la ñuy waat bu nu doon teg xaalis bu ñu ci tegit ñi ëpp ci moom la ñuy teg lu ko waral mooy nit ñi ñooy fal carte yi ñooy fal te ñu ci bari seeni carte jox nañ ko ko boole ko xol xale yi di di fanaan yi nii tey mu fanaan ci biir këram ndeysaan nit ñëpp fees buntu këram ñu jëkk-jëkk ñu ne ko diw sàngam faatu na fa wala waxuma la moom diw sàngam ci parti saam sax waaye ñu ne ko diw sàngam faatu na senegal loola ban naqar lay am ban xol lay am dem ba xolam sax day kii ah ban kii lay am mbokk yi nanu xam ne réew mi ñoo ko moom réew mi ñoo ko moom ñoo koy defar du ay malaakay wàcc du jinne du kenn moo nuy fekk fenn defar ñun ñoo koy defar ñun nag wala noo defar réew mi danoo defaru suñuy jikko day defaru suñuy xol defaru suñuy wax defaru suñuy kàddu defaru ñu defaru kooku moo mën a defaru mais ku defaru defaru nag bala nga koo mën a mën mooy dëgg moo nekk ci yow dëgg dëgg ñi nga xam dañoo gis dëgg noppi ci ak ñi gis dëgg ba noppi bëgg a réeral nit yenn nag ci journaliste yi ñenn nag ñi nga xam ne gis nañ dëgg waaye sañu nu koo wax ñenn ñi nga xam ne dañ leen a not ba dëgg gën amoon lii nag noté woon nañ ko Bilal Bilal ibnu rabaa Bilaal ibnu Rabah doon nan teg ay xeer boo demoon xeeru màkk yi fi ñu toll na mu tàng wax nañ ne boo jëloon ci deux heures jot trois heures ci màkk ba fii nu nekk nga jël benn nen nga toj ko nga teg ko ci xeer def ci diw teg ko ci xeer nen boobu day dana omeleetu ba ñor te moom xeer yooyu lañ doon summi mbubbam di summi yépp di ko teg dëgg la diine lislaam la doon kii de mais défendre sa réew yi tamit dafa doon ci défendar ko ci lépp loo xamante ni ak noteel la ak noteel nga défendar ko ci ku mën a dindee sa loxo dindi la loxo ku mën a dindee sa làmmañ dindil ak sa làmm ku mën a dind jamono yi ne buñ ci àggee ñi ñu gën a soxla seeni xalaat mooy boroom xam-xam bu ragal yàlla borom xel mu ragal yàlla borom kàddu gu neex goo xamante ni dina wax ngir xalaat ëllëg buñ ko dugalee ci bàmmeel yàlla nañ ci suñ borom boole